bismillah mina seytaani rajim mbokki internet yi nga xam ne nooy topp Wadduha TV ñu ngi am yéene taxaada tixi rek mu partagé ak yéen tey naafila boo xam ne naafila njàqare la képp koo xam ne musiba njàqare tiis daf la dëgmal nga def tawassul si naafila bi si mbaaxu yàlla yàlla dina la teggil tiis boobu muy naafila bu rëy rëy rëy rëy fa tabarakala ñenti rak ngay julli rak bu ñëk bi gënaaw fatiha da ngay def hasbunallah wa ni'mal wakeel dang koy def témir yoon gënaaw ba nga jàngee fatiha si rak bu ñëk bi hasbunallah wa ni'mal wakeel moom ngay def témir yoon sar bobu aaye bobu dinañ ko fekk si sorat ali imran rak ñaaral bi gënaaw fatiha nga def la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin rakk ñaaral bi mom ngay def gannaaw fatiha ay temer yoon nga koy def gannaaw fatiha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin rak ñetteel bi gannaaw fatiha da ngay def fa an yahti bil fathi aw amrin min indihi fa ala ma asru fi anfusihim nadimin tabarakallah aaya bobu ñu ko fek suratul maida fa hasallahu an yahti bil fathi أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين aaye boobu ngay def téeméeri yoon rakk ñaareel bi gannaaw fatiha yaa ngi def foofu fawwidu amri illa allah inna allaha basirun bil ibad boobu fawwidu amri illa allah inna allaha basirun bil ibad rakk ñeenteel bi gannaaw fatiha aaye boobu moom ngay def téeméeri yoon aaye boobu danga ko fekk si suratu xaafir ni ki fansalah njaxte bil fatxi yaa ngi koy fekk maida fa tabarakallah naafila bi képp koo xam ne dafa am lu la dëgmal te nga bëgg yàlla muccal la sa loolu fa tabarakallah soo si defee tawassul def si tabarruk loola naroon nekk safaan naroon a nekk lor naroon nekk ngaañ suñ borom dana la si musal def na ku dégg ay rek xam ne macha allah lépp ngi si aaya bu njëkk ba mooy allah wa nixmal wakiil moom ngay def téeméeri yoon ñaareelu aaya ba laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina saalimiin moom ngay def téeméeri yoon gannaaw fatiha ñetteelu rakk ba fa xasallah an yahdi bil fatxi aw amrin min xindihi fa yasbahu ala ma asabu fi anfusihim nadimin moom ngay def téeméeri yoon rakk ñeentebel woowu fawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibaad moom ngay def téeméeri yoon defe naa ne ayat yi macha allah buntu la boo xam ku si fëgg rek borom dina ne la la bayka te lo si ñani si mucc si yekati ku si kir lay yàlla dina la ko defal yagna naa di wax de nan di nawaafi lu bere bere bere bere nax julli audience la rawatina nafila nafila bonus la lutax nafila di barkel moy lam dul force ndax waxti juróom force la si kep ku jullit nga di koy matal mais naafila coobare googu nga si coobare bu mooy tax day neex loolu borom bi ba loo ne allahuma rek yàlla daf lay wuyu kon mbokki internet yi naafila bi lañ leen indaloon tey di ñaan yàlla barkeel yàlla mucc yàlla aar yàlla làq fi yàq àggul yàlla yombalal ñëpp tamit tëdd ak tibb ak sangu seen mbokk la alxaaji Modou Cissé Mara Cissé wasalaamaaleykum wa rahmatullah